jàmm ji info point net et divertir dans la yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te mbokk internet yu jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu fas yéene dikk ak yéen ci xibaar yi ñeel jàngoroy coronavirus di Covid euh, tey ci altine di ñaar fukki fan ci weeru avril euh, Sénégal am na juróomeelu nit bi nga xam ne faatu na te li ko sabab di jàngoroy coronavirus euh, nit ki nag mu ngi faatu ci guddi gi biig bi bi 4 heures du matin jotee moom nag mu ngi nekk mu ngi ñu ngi ko ca hôpital Fann ki faatu. nag mu ngi amoon euh, juróom euh, ñaar fukki at ak ñeent ci bilangu tey bi bilang bi ñu def bésu tey bi si nga xam ne ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn test yi nga xam ne def nañ ko fukki nit ñoo si positif kon fukki nit ñoo amaat jàngoro ji ñu naan coronavirus juróom yi ay cas de contact suivi la maanaam ay nit yoo xam ne am nañ jàngoro ji euh, ba ñu xam ko ñoo ko jotoon walla ay nit yoo xam ne jot nañ saafante ak ñoom mu am nag mu amati juróomi cas communautaire yoo xam ne dafa am si biir nit ñi te xamuñu wàll yooyu sax nan la demee kon loolu tam am na ba léegi am na fukki nit ak juróom yoo xam ne ñoom bi leen contrôlé dañoo négatif kon ñooñu wër nañu amatuñ jàngoro ji di coronavirus bi fii doomu jàngoro bi duggee ba ba sub ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaari cas yoo xam ne ñoo positif mu am ci ñaar téeméer ak fanweer ak yoo xam ne wér nañ am na si juróom nit yoo xam ne kon jot nañ cee ñàkk seen bakkan mu am koo xam ne dañ koo évacué maanaam dañ ko delloo dëkkam gannaaw bi gars yi mbokkam sàkkoo fi nag am na téeméer ak fanweer ak juróom-benn yoo xam ne ñu ngi sous traitement maanaam ñu ngi saytu seen wér-gu-yaram ci l'hôpital yi si biir réew mi yokk bi cas communautaire yi di yokk nag ba nga xam ne jaaxal na lool euh, nguuru Sénégal tax na ba kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu doxalinu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye jël na arrêté démb arrêté boo xam ne nag day rendre obligatoire euh, sol masque maanaam fi mu nekk nii nag euh, sol masque te doo ko sañ a bañ loolu la ñu dogal ci Sénégal maanaam ñëpp daal wax nañ leen ñu sol masque fi nga xam ne mooy ci mooy ci oto yi ak ci bërëbu liggéeyukaay yi ci marché yi yooyu Euh, fi mu nekk nii war nga sol masque so kon port masque obligatoire fi mu nekk nii instauré nañ ko ci Sénégal ngir nag gën a xeex jàngoro ji lii la ñu loon tey ci ay xibaar di leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf. Amoudji info point net informer, éduquer et divertir Amis internautes, bienvenue aux informations concernant le coronavirus Covid-19 en ce lundi 20 avril 2020. Et le Sénégal a enregistré son cinquième décès lié au Covid-19. Le patient est un homme âgé de 74 ans et qui était hospitalisé au centre de traitement de l'hôpital Fan. Il est décédé ce lundi 20 avril à 4 h du matin. Euh, sur le bilan d'aujourd'hui, sur 281 tests réalisés, 10 sont positifs, dont 5 cas de contact suivis et 5 cas issus de la transmission communautaire. 15 personnes contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. À ce jour, le Sénégal compte 377 cas positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et 136 sous traitement. Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté le port obligatoire de masques durant toute la période de l'état d'urgence sur l'étendue du territoire national dans les lieux après Les services de l'administration publique, quel que le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. C'était tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations concernant le coronavirus. Merci. ji